mbokk yi te di ginnaaw bu nu sant yàlla jul seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey baal xaq ñëpp di leen baalu di wax ne rek nu ngi ànd ak yéen ci sunu émission bii nga xam ni mooy yowmal jumaa di émission bi leen TFM tànnal ñu di ko jàllale ajuma ju ci nekk ñuy dem ci jumaa euh, taataan li nga xam ne mooy xutba yi àndandoo ñoom julli bu ñu noppee nag toog wax lu lal euh, jumaa jaak yitte ya fa am euh, tey nag ñu ñëw fii ci daaru cubb muy dëkk boo xamee ni dëkk bu yees la boo xamee ni daanaka ci ginnaaw malikaak ak euh, Pikine ak côté yooyu yëpp euh, danañ ko ràññee euh, nu ñëw fi nag ci daara ji nga xam ni mooy daara yi Alxaaji Alioune Sall di daara joo xamee ni fii la ne ci daaru cubb ñu ñëw fi nag fekk fi élèves yi xale yi ni ñuy jànge muy internat bu mag boo xamee ni tey boo fi ñëwee rek da ngay yéemu ndax ndaw ñi niñ leen di jàngalee alxuraan nu ñëw nag ànd ko imaam bi rek fas yéene dugg ci jumaa ji taataan li nga xam ni mooy julli gi eh, ànd ko seen xarit Ndiaga Seck incha allah ak Aliou Diagne. mbokk yi mën a ginnaaw wax jooju nga xam ne moom la ministre bi waxoon yàlla na ci dellu ginnaaw te yëg na jàkka tabaxuñ ko ngir former ay délinquant ngir forme li ñu tuddee terroriste te tur wi moo ëpp jëmm ji ñi jóge ci jàkka tem ñooy ña jóge ca daara ja ñëw ci jàkk ji daara ji nekk barabu jàngukaay jàkk ji nekk barabu formukaay al madrasatu al quraaniya li taalimi al wa tarbiya wal masajid li takwin al muslimin rolu jàkka bokk na ca mooy takk sëy yi malheureusement nun jàkk yi day takk waaye sañu ta tekki jàkka ju ne wutal nañ la ab karne boo xam ne boo mayee ba noppi way seede ya bind ca yóbbu ko état siwil ba ñu ne kon ñi ngi légaliser sëy bi mu ndax jullit duñ bàyyi xel ci loolu ci code de la famille boobu wax ne su ngeen takkee ca jàkk ji bu ngeen ñëwee fii bu ngeen ñëw ci bañ de ko doxut ah mu sëy ba demut foofa bañ validé ko kon moom fu ñu luñ ko bëgg a jàppee ibaadallah rolu jàkka du toog fii rek takk taari cay génn déedéet takk gi dafa dagan bu ñu amee këyit ca tribunal ba dagan na buñ ko ca amutit dagan na buñ ko ci amuti dagan na yàlla moom ku jigéen ki moo moom ku góor ki moo moom seeni baay moom seeni ndey ni dajaleen ca jàkka ja na am ku ñaan am ku maye am ku xutba ma légaliser kon sëy ba validé nañ ko soo bëggee kayit nag demal soo bëggut kayit toogal ñàkk ami kayit teewul sëy bi valable waaye fi ne même boo fase dañ naan la boo ñëwul ba tribunal fase ba dugut te nee ndaw si fase naa la wala may naa la sa baat tribunal ba ne la doog a gudd kat mën ngeen a continuer sëy ba léegi ah baax na jàkka daal dañ koo tabaxoon ngir ay role yu bari rôle avec es bokk na ca role ya ma ne takk sëy ci niñ koy takk ci jàkk yi waaye bokk na ca lu tax jàkkay takk sëy daan ne cel bu sëy bi amee ku ca juddoo na jàkk ji xam recensé ko bu amul këyit na ko yebal fa ñuy am jiw këyit bu matee dal jàng na ko jàkk ji xam lu muy jàng na ko jàkk ji xam bu ñëwee ba mu koy formé formé ko yomb ko lu rek la waaye maye rek wasalaam génn ca loolu taxutoon jàkk jóg sallallahu alayhi wa sallam saxaaba bu ma sa am doom yaa ngi ko yët doom ja ca jàkka ja jox ko mu nodd ci nopp bii li xam ci bii luy loolu kon ma ngi koy bind ma ngi koy ma ngi koy inscrire ndax mu am kayitu juddu waaw bokk na ci roli jàkk ginnaaw loolu te bunt bu yaatoo yaatu la xajul ci xutba mooy jàkka moo wara dajale asaka yi séddale asaka yi muy asaka mu dum koor di asakay alal ñi ci jàkk ji ñëpp war nañoo xam ñi fi am nisaab ci alal ci ay xar ci ay nag ci ay bëy ci ay gëléem ak ci compte jàkk ji xam ko bu at mi jeexee commission bi yor loolu ñëw seet si la xam li nga am mu boole lépp génn la ko deux virgule cinq pour cent defal la reçu ga dem ñibbi moom jàkk ji nag xaalis boobu mu xam ne inama sadaqaatu lil fuqara xam na leen wal masaakin xam na leen wal aamilina alayha xam na leen wal mu'allafati quluubuhum ba mu jeex xam na leen waaye gis nga noflaay boobu yàlla bëggaloon nit moom la nit di bañ day génne asakaam du ko yët imaam déedéet parce que day wax ne bu ma ko yëtee imaam da koy lekk lu ci sa yoon waaye du ko yët imaam ci poosam la koy def bu gisee ustaas bu ko neex mu jox ko ca cinq trois mille bu gisee bi yalwaankat jox ko ci mille cinq cent bu amee sens boo ñëwee di ko jàmbat ordonnance su quarante cinq mille mu jox la cinq mille ne ko ci dugal kañ la asaka ji jeex ci poosam coono topp ko te nag kum jox rin bu déwénee nga programme ko di ko seet si déwén bii di ñëw ña koy wax bu mu fàtte ci asaka ji moom du ko mën a takk léegi saabu bu meree nag ne leen génneetuma ko ah kay yaa ngi koy génn kay yaa ci dugg foo ci wartu dugg moo tax loolu loolu lay def mbokk yi miira miiraas mii nga xam ne daanaka xewi na Sénégal miiraas daanaka xewi na Sénégal yonent baa ko waxoon sallallahu alayhi wa taallamu alfaraida wa allimuha fa innaha awalu ilmin aw kama xaala jàngaleen xam-xamu miiraas te jàngale ko xam-xam yi ma xam moo ci njëkk a dem ñaata kër ñoo fi nekk kër ga boroom kër ga faatu waa waa waa miiraas ma defaraat yëkkati étage wut wut atelier wut magasin du luyo di lekk waa kër gi keneen faatuwaat keneen faatuwaat wàllam ci miiras mi mu faatu bàyyi ko fi kee wàllam ci miiras mi bàyyi faatu ko fi boroom xam-xam doon def munaasaxa munaasaxa mooy kii faatu na bàyyi fi ñu miiras sédd ko dóor ko miiras bu demee trois ba quatre ba cinq dañ koy mënati loolu bunti miraas tëggu ko jàkka ma war na doxal loolu fexe mu am bibliothèque bu mag dugg ci internet bi dugg ci yëfi jamono yii ba bu mbool bu nit faatoo ca dëkk ba ñu sol seenu dàll taxawu soxna ya ñu tënj tënj bu jaar ci yoon ba tënj ga àgg ñu wax leen lan moo ji tënj nuñ koy defe luy idda nuñ koy defee bu jeexee ñu miiraasal leen kenn ku nekk la ngay am ci alal jënga nga am ko ca kër ga tas ku ne dem ñun la ñuy def déedéet dañuy wax ne dañuy bañ famille bi tasaaroo kon nag tàntay xale yi jëlal néeg bee aawo yow jëlal néeg bii moor xoj muy mag na jël ci kaw uuf leen seeni rakk ah, ci alali jàmbur yuusikum allahu fi awlaadikum li dakari mislu xasil unsayayni ñu teg ko fële na yàlla daa bëgg tas suñ kër yi mbokk yi lii lenn la ci róolu jàkk lii lenn la ci taxawaayu jàkk duruusul masaajid tax na importance ba ba sallallahu alayhi wa sallam jógee màkk ñëw ma dina jàkk ji la njëkk samp samp ci këram dafa samp jàkka door a samp këram waaye ci cay jàkkaam ja am na ñoo xam ne jàkkaam ja moo doonoon seen dëkkuwaay fa la ñuy yendu fa la ñuy fanaan fa la ñuy ndékkee fa la ñuy añe fa ñu la ñuy reere ba ñu tudde leen ahlu suffa ku togg añ te ma leen yekkal yekkal leen fa ku togg reer ma leen yekkal yekkal leen fa bu kenn yëkkalut yonent bi ne diw demal kër diw nga xaaraani fa reer diw yow demal kër diw nga xaaraani fa reer bu ñu reeree ba noppi ñëw dellu soit ci jàkk ji rôle lu jàkka weesu na ñu jàpp ne dafay nekk rek di tabax ay terroriste ak di leen fondement ak di leen def yooyu haasa lillah wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada aqulu qawli haasa wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu huwa al ghafuru rahim allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu allahumma unsur man nasara ad-din wakhzul man khasara al-muslimin allahumma unsur man nasara ad-din wakhzul man khasara al-muslimin برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ñu bàyyi xel téléphone yi Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal camalan saalihan wala yushrik bicibaadati rabbihi ahadan allahu akbar sami allahu liman hamidah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 شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر allahu akbar asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim mbokk yi tedd yi bu nu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nu ngi ci sunu émission bi nga xam ni mooy yowmal jumaa euh, tey jii ci xutbab jumaa ñu ñëw fii ci daaru cubb ñëw nag ci oustaz imam euh, Alioune Sall euh, nga xam ni tabaarakallaahu dégg nañ xutba bu mag bi nga xam ni ànd nañ koog yéen nu dellusiwaat toog ak waa jumaa ji ni le bëggan ko jox moom imam ndax dëkk bi le xam ngeen ni dëkk bu yees la waaye taxawaay bi nga xam ni jumaa ji jullit yi ñoo ngi ko ñoo ngi ko fi taxawee damay daal di jox imaam kàddu gi rek su ko defee nag ñu jox ñi nga xam ni ñoo nekk ci eh, yitte yi nu wax ci incha allah su ko defee ñu dellu siwaat ak ñoom kon oustaz bismillah euh, jërëjëf sëriñ njaga euh, fii nga ñëw yaak euh, waa TFM mooy Daaru Cubb dëkk bi xëy na bee xaw naa yàgg lool nu dogal nu fi li nu fi dogal ñu samp fii lii nga fi gis muy jàkk jeeg daara ji fii nu toog mooy mooy jumaa ji fi lañuy ñuy joxe suñuy julli juróom di fi tafsire alquran di fi jàngal tu tànk yeeg di leen fi forme yi ma doon juuju ci xutba bi fii lay xewe ma ànd koog jàngalekat yu am solo yi ànd koog imaam bii ak sama wet muy imaam Balla Sall ak màggi jàkka ji nga xam ne ku lim jum ñu ngi ni toog ci suñu biir nu mbokk ànd ñoog ñoom kon loolu mooy jàkk ji daara ji moom nga séen nale dugg nañ fi maag yow ñu xool côté bi nga xam ne fi la jigéen ñi dëkkee ñu tuddee ko Adja Binte Thiaw euh, jigéen ñi rek ñoo fay dëkk walla gëlee féete la ndeyjoor bi ngay dugg mooy wàll gi nga xam ne fi la xale yu góor yi dëkkee li na ci diggante bi nag muy mbaar mi fi la xalqa yi nekk bu ñu yeewoo quatre heures songu njàng mi ba julli jot nu julli continuer ci njàng ma bu nu gee xëyee xale yi nu sangu bu nu noppee def li tuddee ndékki mbirum ndaw ko ndaa buñ ci noppee noppalu diir tuuti daal duggaat di jàng daanaka seen 24 sur 24 danañ ci noppalu nag ñaaroon ba ñetti yoon loolu mooy sunu programme fii ci daara ji di daar ci bu am nañ nag yeneen daar yoo xam ne mi ngi topp si daara yi incha allah jenn jàng fële ci Liberté de Villa 1537 jenn jàng fële ca croisement Ngunjaan seew xaay jenn mën a fële ci àllu ngoraan boo génnee jama tuuti ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a naal ci ci dëkk bi loolu daal fii nga ñëw tey kon mooy daaru cubb ma ànd kook sama gaa yu baax yi ci diggante ay jàngalekat ñi nga xam ne ñooy fondation euh, Ali Imran ñi nga xam ne ñooy Ali Imran ci seen bopp parents d'élèves yi nga xam ne fii weer wu jot premier samedi nun ñëpp ay bokk daje fii ñuy jàpp ci liggéey bi moo xam ci biir réew mi lañ nekk moo xam bitim réew njaga daal su ma la bëggoon tënkal maa la fii nga ñëw tey mooy daaru ci bu ah, fekk fi nag ay dëkkandoo yoo xam ne macha allah ku lim juum ndax loo fi xew noo fi jiitu ànd kook ñun jàppale ñu ca te itam xam nga daara njaga gone yeeg seen coow gone yeeg seen dagg mango gone yeeg seen eh, bërti bërt waaye teewul lépp lañ nangook ñun ànd kook ñun xam ne tuyaaba ji boo liggéey noo koy bokk ak ñoom jërëjëf ci waaw programme njàngale mooy fii bu fi ñëwee bu accès te fekk musta dal ndax juróom-benn at lañ fiy duggee ku am fukki at ak ñaar ñu la da nga kon bu xale bi ñu li ñuy def mooy dugal ko ci fi ñuy jàngi ijjëg boole bu ijjee ba boo ba mën a ijjëg boole ñu dugal ko ci xalqa bi mu njëkk def muy sana ula bu ko defee ñu ne ko barab sàngam lay tàmbalee ci alxuraan yem ba barab sàngam ci atam mu njëkk ñaarlu atam nii ñetteelu atam nii buñ ko téyee ñeenti at jàpp juróom xale bi bu fekkee naqariwul dere naqariwul xel lool day bokk ñiy tari ci feet gi nga xam ne ñu ngi koy def ci weeru koor wu ne kon loolu mooy suñu programme bu xale bi mokkalee alxuraan nag ñu ne ay param ñu delloo si leen ko wala ngeen bàyyeenu ko ñu ne bàyyee nañ leen ko franco arabe baa nga fële ca yoon wa moom ña ngi fay gàttandu ay xale ca jardin ba ku mokkal fii te say parents bàyyi la ak noonu nu yóbbu la foofa dëkk bi am na fi ñoo xam ne ñi xëy na duñ jaar fii waaye dañuy dem direct ca franco arabe ba donc ku mokkali fii rek foofa nga jëm franco arabe bi nag programme national lañ yor programme national bi ministre l'éducation national di joxe moom la ñu yor ba bu xale bi génnee bac yi nga xam ne moom la état bi di. programme bag yi xam ne moom la organisé moo xam bag la BFM wala entrant mu ñoom seen yooyu xale yi dañ ciy participer ren mën nga ne bi ñu ci duggee 100 pour cent lañ am ndax ñu dugaloon ñu defi ñëpp am donc lii mooy programme mu daara ji ci ci njàngale mi. ni ñu duggee ci daara ji métti na méttiwut métti na ci xëy na ki ko yorut waaye ki ko yor méttiwu ci dara ndax bu ñëwee inscription bi ñu koy laaj taxu koo jafe weeru jot li koy laaj it taxu koo jafe. donc métti na méttiwut ki yorul dara mën naa mu ne yii lii métti na ci man waaye wax dëgg yàlla am am sa doom indi ku fu mel nii weer wu jot lañ la ceey laaj man li may def ci xale yi moo ëpp li ma parent bi di jox ndax xam nga ne waa UNICEF ak ñiy toppatoo mbirum dundu xale dañuy wax ne xale bu nekk 3000 francs moo ko par jour minimum 3000 francs moo ko dundal par jour minimum kon xale bi mel na ni bu joxe woon mille li muy tekki mooy moom li koy dundal dong la joxe. kon des na kon léegi lay fay jàngalekat ba kon boo calculé woon lépp boo ko laajee day wax ni suu loolu dafa seer nit ñi nanguñ koo fay ci njàng balxuraan moo tax ñu woyefal ko lool ba parent bi man koo def ñun nag la ca des nun nooy jóg mottali ko sol sunu dàll dugg réew mi beneen ba bitim réew lu ñu fa dajal rek bu ñëwee dugal ko ci seen biir kon jërëjëf Oustaz Alioune xam naa damay jox imam moom itam kàddoom rek eh, ci eh, jumaa ji programme bi maanaam eh, fii nga xam ne commission jumaa yi ndax dégg nañ ko ci xutba bi naka lay doxee kon imam bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ni muy def fii ci jumaa ji mooy waxtu yëpp fi lañ koy jullee bu dee ci koor gi day soppeeku alxuraan lañ fi naafilaat xale yi nga xam ne ñoo wàcce ci daal ji ñooy jiite naafile yi ñooy jiite naafile imaam Malik mi mooy seen jiit moom mooy jiite loolu waaw teewul nag lépp loo xam ne yëg nañ ko ci ay cas sociale yoo xam ne war nañ koo toppatoo ci koñ yi ni ki ngénte yi ni ki dëj yi ni ki yëpp dañ fay dañ dañ fay dem di fa daje dañ fay dem di fa daje di ko toppatoo di fi wutu oustaz mi nga xam ne moo ñu fi teg waaw bokk na ci rôle jàkk ji boo fekkee xew-xew am na boo xam ne bii dafa bettee dañ ciy def benn bayaan wala bu fekkee dafa laaj yu ëpp benn bayaan ñu def ay bayaan yu bëree bari maanaam ay leeral yoo xam ne danañ ko fi def nit ñi di moo tax nit ñi ñu bëree bëree bari di fi sawar di jullisee eh, kon daal loolu laa la mën a tënkal ci li nga xam ne mooy programme mu jàkka ji Sass Ndiaga waaw koy jërëjëf imaam moom xam nga euh, sëriñ la ci daara ji kilifa la ci daara ji mooy imaamu jàkka ji itam waaye moo fi taxaw itam al euh, oustaz Alioune euh, su ko defee itam ab dëkk boo ca nekkee waa àddina danañ am benn cër booy nekkee ak ñoom ñu jox rek sëñ Ali mi nga xam ni moom moo fi nekkal conseil municipal la sëñ Alla sàmb ñu jox ko kàddoom rek ci nekkin wi nga xam ni daara ji ni ko oustaz waxe ndax daara moom ñaari ñaari dañ ni dafay fatte day metti ci nekkin waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo yor wàllu euh, taxawaayu maire bi ñoom naka lañu gisee liggéeyu daara ji auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, laaj bi ma laaj euh, soo ma ci ko soo danaa ci naa ci sawar a tontu ndaxte laaj bu amee importance la ndax ci li ma laaj moo am njëriñ moo tax laaj bi boo ma ko laajee dinaa ci sawat lool ndaxte euh, njàngalem daara dañuy wax dafa fàtte waaye ñun ñun fàttewut ndaxte daf ñu jàppale ci sunu ci sunu ci sunu doxalin ni ñu war a ñu war a doxalee ci askan bi régulateur social la ndaxte euh, li li nga xam ne dafa waroon a sori ñu waroon ñu waroon a déplacé wu dem ba ay Dakar dem ba ay faneen di ko fa di ko fa di ko fa di ji yàlla dimbal nañu ci kattanu oustaz Alioune Sall mu indi ko suñu biir luñ def lu rafetlu ko te yokkute lañ ci gis ndaxte xutba yi ñuy xutba rek am njàngale la ndaxte ñu bëri xutba yi dañ koy def dañ koy ah, ah, ci arab lañ koy def mais yàlla dimbal nañu moom ci ni ko yàlla bindee ci fasaam ci ni muy ni muy leeral leerale kii xutbaam daanaka am njàngale la waxuma la daara yi sax mais mag ñi si boppam sax dañoo yaru ngir ni muy xutba donc kon loolu ñun duñ def lu rafetlu ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daf koy def loo xam ne xaju fi parce que tamit euh, route bii dugg si biir euh, biir dëkk bi ginnaaw yàlla moo ñu jàppale ba mu am te aussi tamit euh, conseil économique et social la tamit baatam fu mu àgg ñun sunu kàddu àggu fa donc kon li ñu def rek mooy rafetlu nekk nañ fi. Mm. dérangé wu ñu de mais daf ñu arrangé. au contraire kon ñu ngi koy ñaanal bu yàlla lépp loo xam ne daf ko ci daf ko ci xalaat e, bëgg ko fi yàlla mottali ko ñun duñ defuñu loolu rafetlu ko te ñun dañoo sant yàlla ñun waa Médina Thioub ñun e, ñun ñoo moom moom ci boppam e, jëriñu ko dara mais moom moo ñuy jëriñ au contraire. kon vraiment conseil municipal bi dañ ko jàppe ñaari loxo wan ko ne ko ñun suñu sëriñ nga suñu imaam nga. te lépp loo xam ne tamit euh, commune bi soxla na ko moom da ciy xar tànk tubéy pour mu am ko kon ñu def lu rafetlu ko kontaan ci lool lool lool di ko ñaanal yàlla lépp loo xam ne mën na ko ren bu bu ne yàlla na ko mën. ci ci kàttanu yàlla kontaan nañ ci trop daal. jërëjëf Samb euh, kontaan nañ kon mbokk yi xam naa foofu la ñuy daal di jéem a tàggoog émission yomal jumaa jox imaam muy euh, ñaanal nu yàlla léegi ci kanam nag di ngeen gis rek dinañ dugg ci néeg yi nga xam ni fi la xale yi dal euh, nga xam ni tey bi ma duggee ci barab yooyu dama ko ne ah fii de sa liggéey bi wuutewul ak na ko mag ñi daan liggéey rawatina nag Cheikh Cheikh Moustapha am Serigne Basirou nii la ko def boo demee Poroxaan xale yi kenn ku ci nekk taxawaay bi set gi boo duggee ci duus sa xol bi dafay sedd ndax ni nga xam ne noonu la ni muy taxawoo xale yi duñ ko am ci seen biiri kër yàlla yegal ndax lu mel nii bu ko Sénégal aman rek defe naa jag-jag dana fi ame te boo fi génnee jàpp naa ni yeewute ak xam addina dana la yomb ndax dégg ngeen ni mu ni mu ko waxee ci meneen njàng mi mu lay dugal kon nag maam nu ngi lay jox kàddu gi nga ñaanalu rek nu tàggoo baa jum ak jàmm incha allah allahuma rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwaabu rahim rabbana aflana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa salli ala muhammad wa sallim mu cagam أشهد أن لا ne da ngeen di way bismillahi rrahmani rrahim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma